sabab bi nag ñaar moo ko tënk mooy le bi passé dañu demul fële ca palais de la république euh, le président Macky Sall woowoon ñu fa pour ñu waxtaan waxtaanu échange ak moom mu xam ni mu xamal ni ñu làmb am na ay jafe-jafe ñun rek nekk ñu foon composante làmb yëpp a fa nekkoon les communicateurs traditionnels les anciens couloirs les sages les promoteurs maanaam branche yi nga xam ne dañu ngànk làmb yëpp ñu fi woon kon boog la monde de la lutte le président Macky Sall invité woon pour am échange ak ñun waxtaan boobu nag waxtaan bu yaatu la li waral jotaay bi fii nag mooy jotaatu jotaayu waxtaan ak rencontre maanaam tey expliquer euh, la ñu fa jëlee ak avancement yi nga xam ne tey ak lu bari loo xam ne tey waxtaanee nañ ko fa muy suñu ay doléance yoo xam ne en toute sincérité euh, bi ci njëkk mooy jafe-jafe bi nga xam ne mbëri ñu ngi koy dund làmb di ko dund bi ci njëkk mooy ñëpp xam nañ ni reconversion des lutteurs dafa am dafa am manquement te président lancé xëyu ndaw ñi ca jotaay ba ñu toog mu xamal nañu jox nañu benn quota boo xam ne tey ci xëyu ndaw ñi ñu waxtaan ak moom wax ci ñun am na ay jafe-jafe logement sociaux li nga xam ne secteur yu bare bare bare bari dañuy am bénéfice ci maanaam logement bokkoon na suñu ay mébét ñu wax ko le président suñu jafe-jafe bokk na ci couverture maladie universelle maanaam tey problème mu santé ñu tey ahlu làmb dañu am jafe-jafe boobu trop moom it moom it loolu bokk na ci ay mébét yi nga xam ne tey ñu ko ko wax mébét yooyu nag biñ ko ko biñ ko ko waxee ba ñu jóge fa en toute sincérité gis nañ ci ay jéego yoo xam ne tey avancé na parce que tey bërki démb rek fii la ñu toog war a def doon def assemblée générale avec son ministre Samba Ndiobène Ka pour tey ñu teg pour tey ñu teg bureau boo xam ne tey moo ŋànk mutuelle de santé bi nga xam ne tey moom lañ moom la waa làmb yëpp bokk te nag association wala kuréel yàgg na dem yàgg na dem fële ca palais de la république ñu dig ko wala ñu wax ko mu nekk ay diir avant que ñu koy exécuter waaye benn ci yooyu nga xam ne tey président dig nañu ko en toute sincérité mi ngi am ay avancement te yaakaar nañ ni bu ñu jógee ci mutuelle de santé danañu le ministre euh, le ministre de l'habitat dina toogaat fii ay fan pour teg bureau pour tey teg coopérative d'habitat ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu nag dama koy partagé ak suma frère yi nga xam ne wax dëgg yàlla euh, wane nañ keroog seen présence wane nañ keroog ñoom ban profit lañu am ci dëkk bi wane nañ keroog ni ñoom làmb am nañ ci rôle bu mag a mag a mag a mag a mag bu ñu joué boo xam ne tey tey y a plus mille et quelques jeunes yoo xam ne tey ku ci nekk yaa ngi ñaan yàlla mel ni jëm yi toog pour ne pas citer di guddal bari na ay suñu ay rakk yoo xam ne tey euh, seen yéene seen ay engagement mel ni champion yi wala ñu raw ñu parce que tamit nous sommes partis de rien du tout parce que nag bi ñuy dugg ci làmb li tax ñu dugg ci làmb c'est pour aider nos familles parce que dañuy judd fekk suñu kër kër ku fi nekk tey fekk sa kër gi saxaara ku ne làmb nit mënu ci defar ba defar ay nit xamuloo luy làmb parce que ñu fi toog ñii ñëpp tey daan nañ dem ay jamono di dem entraînement bu ñu fa jógee du ñu am lu ñu ndékkee du ñu am lu ñu lekk du ñu am lu ñu naan kon àddina dara xëyul xëy sotti waaye tey ñun ñii tey ku ci nekk làmb fay na la làmba sagal na la làmba sargal na la est-ce que nag ñun làmb daf ñu war a sargal sagal ñu def ñu lu ñu doon tey fu ñu romb ñu tàcc ñu ñun tey làmb nar a sëngéem am ay jafe-jafe ñun ñi tey du ñu takku takk suñu ndigg pour suñu rakk yi nga xam ne tey c'est des di c'est des milliers de gosses yoo xam ne partout au Sénégal fépp ñooñu tey koo ci tàllal micro lu muy wax mooy dama bëgg dimbali sama ndey dama bëgg dimbali suma baay dama bëgg dimbali képp ku jege ci man ñoom ñooñu tey ñun ñu lekk naan ci soow mi lekk ji ba suur est-ce que ñun war nañ toog làmb am ay jafe-jafe ñu croiser le bras duñ def loolu moo waral suñu toogaay bii moo waral tey ñu takk suñu ndigg pour suñu rakk yooyu nga xam ne am na si ñoo xam ne làmb moo sëngéem moo tax ñu voyage illégalement am na ñoo xam ne ci jaar dem seen yoon parce que gisuñu seen bopp seen ci làmb ji am na ñoo xam ne dañu voyager légalement dañu am dem ñu jox leen visa ñu tukki te loolu tey boo ko recensé c' est des c' est ay 300 personnes ay 300 lutteurs et quelques loolu nag tey moo waral bi ñu président de la république woowee fële palais ñu am sago ak dal jàkkaarloo ak moom wax ko jafe-jafe yi nga xam ne làmb mi ngi koy dund. te nag président bu defaree làmb ñun ñii la ko def ñun ñu toog parce que fii ku fi nekk yaa ngi sant yàlla waaye ñun dañuy xalaat suñu ay rakk dañuy xalaat suñu ay nijaay président yamul ci làmb mbër de. parce que moo distribué moo distribué boppam xëy ndaw ñi parce que xam na ni am na ay anciens gloires yu fa nekk xëy ndaw ñi parce que il faut être jeune pour nga bokk ci mais am nañu ay jarbaat am na ay ndija am na ay rak am na ay jarbaat am na ay sët. ay supporters moo ko distribué boppam ku ci nekk pacc bu ci nekk même organe de presse bi sax président nee na jox na leen 20 personnes noonu la ko séddalee ku ne ñun mbër yi mu jox ñu 150 pour xëyu ndaw ñi mais loolu nag sant ak ngërëm ñeel na ko. ku defal làmb dañ la war a sant ku dul sant ku dul sant nit doo sant yàlla yàlla tëbul tëb rek di la di la defaral làmb da yàlla day jaarale ay mbiram ci doomu adama quoi qu'on dise mooy ñu ngi koy sant di ko gërëm ci yooyu nga xam ne jéego yooyu nga xam ne mi ngi koy dox di ëxlu làmb te làng nag sëngéem te ñuy ñaan yàlla projet yi nga xam ne mi ngi ci kanam yàlla na ko gaaw mu nekk lu lu suite loo xam ne tey lu gaaw lay doon euh, fa campé débat bi li ci des dinañ ko gën a yaatal pour bañ a guddal suma frères yi yëpp ku ci nekk ambassadeur nga fa nga nekk ku ci nekk làmb tey mënuñu tudd làmb te tudduñu la ku ci nekk yaa liggéey lu tax tey foo romb sénégal yi safoo la tiitooroo la kontaane la kon ku ci nekk am nga kàddu am nga sa mot à dire kon maa ngi jël kàddu yi jox ko euh, mbëru Géejawaay bi ñu koy woowee Balla Gaye numéro 2 boo ko tuddee ci làmb xam ne marqué na empreinte ci làmb daal rajim bismillaahi rahmaani rahim maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam di nuyu ñu fi daje yëpp képp kuy journaliste di nuyu sumay mbokk mbër yi nga xamante ne ñoo toog vraiment yi nga xamante ne ay grand champion lañu nekk ay référence ci Sénégal débat bi nag kon ni ko gëri ibbee ci lay ñëwaat rek di leen xamal ne woon demoon nañu pare waaw ah, jaadu na tamit ñu leeral askan bi lu ñu tax a jóg parce que tey dem na pale rek dafa doy waar lu nekk lañuy wax wax wala ñuy gisee fu ne te ñun aussi tamit ay doomu góor lañu ay jàmbaar lañu te jàmbaar nag taxul nga ne jàmbaar rek yem ci kenn ku nekk fii toog li nga doon yaa ko ñemeel sa bopp yaa ko liggéey yaa ci xar sa tànk tubéy képp ku la ci yaakaar nga jàppale ko ci kon ñun ay référence lañu aussi tamit ci làmb tey nekk référence aussi tamit taxul. nga yaacaar rek toog ñun ci dëkk bi lañ dëkk ci dëkk bi lañ bokk kon ni ko ñëpp bokkee avant tout aussi tamit ay citoyen lañ nekk doomu réew mi di doxal réew mi bëgg Sénégal kon jaadu na balaa ñoo wax dara ak di dugg ci dara réew mi bu amul jàmm dara du dox dara du baax te day ñaan yàlla Sénégal am jàmm ci réew mi bu loolu weesoo Euh, fi may duggaat rek mooy làmb industrie la journaliste bi da ci gis boppam mbër bi da ci gis boppam jaaykatu këram bi da ciy gis boppam ba tax na nag gis nañu président de la république Macky Sall mu dox ay jéego te jéego yooyu mu nekk pour askan bi moo tax jéego yooyu mu nekk aussi pour doomu réew mu nekk pour.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 maam Limaamu Laay fi la nekk Serigne Touba fi la nekk Alaaji Malick boo Kounta loolu dañ koy sante suñu borom bi nga xamante ne moo ñu taxaw ba réew mi am jàmm kon jàmm jooj dañ ko war a continuer jàmm jooj dafa war a sax jàmm jooj dafa war a am ci Sénégal kon ba tax na euh, suñu kàddu rek mooy fii lañ koy yemale euh, du gudd waaye daal maa ngi ñaan yàlla réew mi am jàmm président Macky Sall gis nañu aussi tamit vraiment jéego yu muy dox ci làmb ngir expliqué na ko ak famille làmb ndax làmb bu amee jafe-jafe wala paa bu feebar ancien gloire yi feebar day jël ay matuwaayam yónnee te nit du ko sax xam te am na loo xamante ni aussi tamit bu ko nit di def rafet na ñu wax ko parce que ñun làmb lañu am ku jàppale làmb dañ la war a jàppale ku jàppale làmb dañ la war a jàppale parce que loolu mooy yoon ñi ñu fi toog ñëpp ci làmb tax moo ñu tedd làmb tax ñoom teraanga pourquoi pas tey ñu mun a xew tey bu am ku am dara fii ba ci mën a bokk ak doomu aadama yi làmba tax kon nag kuy jàppale làmb ñun askanu làmb dañ lay jàppale parce que ñu nekk si suñu ginnaaw moom Marème Faye Sall gis nañu jéego yu muy def ñun fii xoolal namuñu dara de ñun ñëpp a ngi tedd ñun ñëpp a ngi am lu ñu bëgg ñu ngi sant yàlla kenn mu mënu ñoo jënd tey réew mi kenn ku nekk am nga droit far fu la neex kenn ku nekk am nga droit def lu la neex tey Gris Bordeaux am nañu koy supporté Eumeu Sène Modou Lo Boy Niang Baboy Lac de Guiers numéro 2 kenn ku nekk moom moom yëfam mais nañ ko ànd ci dal ak respect ak yar ak teggin maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. bisimilah wa ngi sant ñi fi sant Sénégal gi yëpp mag ak ndaw góor ak jigéen di jaajëfal ñëpp di jaajëfal tamit aussi journaliste yi di nuyu tamit aussi son mbokku leader fi nekk yëpp. li ñu bëggoon wax daanaka kii woon na ko balloo na tey président recevoir nañu ba ñu recevoir nag ba pare coow am na ku nekk ak ni nga gisee mais li may wax rek mooy que ñun dañoo avant président da fekk ñuy gérer suñu carrière di ñafe suñu life te lépp lu ñu am ñu ngi koy bokk ak sénégalais yi di ci def tamit aussi di ci def euh, ay ndimbal ndimbal mooy que képp ku am problème du ñu xam sax ni monsieur le am na ci gox boobu lu ñu njëkk a def mooy que ñu sollicité ñu ñi ci feebar ñi ci am problème location ñi ci am problème lu ci nekk nit ñi dañuy ciy ñëw di ñu di ñu ci wax seen xalaat ñi la ciy jàppale kon ñun suñ taxawaay ci gox bu ñu dëkk am na njariñ ba ci tëbaskeeg lu munti aw dañ ciy jàpp bu baax a baax a baax du dëgg kon tey tamit aussi bu ñu monsieur le président recevoir kon nu muy recevoir yeneen muy muy secteur bu nekk rek ku ci nekk mu invité laajte sa xalaat ci réew mi ñu dañuy wax suñu xalaat ci réew mi ba pare tamit aussi wax ko suñu wàllu liggéey naka lañ ci bëgg mu jàppalee ñu si d'abord sponsor bi ñëw na te ñun tamit aussi bu ñu fàttani suñuy rakk suñu ginnaaw lañuy ñuy liggéeyal tey ñu ñoo fi nekk mais jàppaleen ni monde de la lutte moo nekk suñu ginnaaw te tamit aussi jàppale suñu wàllu liggéey ku ñu ko def ku ne rek ñu dañ la war tamit aussi jàppale pour man lu ma gis mooy que. président jàppale na làmb jàppale ne sport bi lépp ñun tamit aussi dañuy jug pour jàppale ko toujours su loolu la waaw ñu dañ jug tamit aussi pour jàppale ko te tamit aussi ñu ngi si ginnaawam muy man muy Modou muy Boy Niang muy Gris Bordeaux képp ku fi nekk rek pour Sénégal ñun dañ lay jàppale parce que Sénégal moo ñu ñor Sénégal moo ñu ñor kenn du fi nekk ñu lay xeex wala ñu indi benn jafe-jafe bu ñu ko defee rek Sénégal la ñu indi jafe-jafe que Sénégal lañ xeex dañ koy jàppale ba keroog mbiram di jeex kenn ñëw ñu jàppale parce que Sénégal moo ñu ñor ay citoyen lañu du dëgg Sénégal lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee suñu maamaati maam fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee kon ñu Sénégal lañ bokk war nañu mën a wax suñu xalaat ci Sénégal toujours su loolu la jàppale ñu duñu gën a gore pare nañ pour jàppale Macky Sall ba keroog wàllam di way kenn di ñëw ñu jàppale la Sénégal moo ñu ñor voilà loolu la ñu ngi si ginnaawam di koy jàppale. waaw muy doon aouzu billahi neex na ñii ñoo ngi nuyu assistance bi fi nekk yëpp muy journaliste yi di nuyu sama mbokku mbër yi di am contentement bu baax a baax baax teew fii pour waxtaan ak yéen lu tubaab di wax la répétition est pédagogique. daanaka li ñu bëgg a wax yëpp euh, ñu fi jaar wax nañ ko muy Gris Balla ak Eumeu mhm. d' abord dañuy féliciter suñu u yi yu doon football démb defate nañ jaloor ci sport lépp di wane ni liggéey la dañu investir ci sport bi mhm. moo tax football macha allah jéego yi muy teg ku ne gis na ko di Sénégal mhm. ren jël nañ fi gars yi ñuy wax cinq rek mais am na yeneen ak yeneen yi nga xam ni kii ko vraiment di leen félicité bu baax di wax dëkk bi yàlla na fi jàmm yàgg te sport bi mu ngi avancé bu baax a baax loolu nag moom la ñu bëgg ci làmb ji te gis nañ ni jeego mu ngi am comme lu giri wax keroog dem nañ palais président recevoir ñu yóbbu suñu doléance doléance yi ñu ci wax d' abord yu bëree ngi avancé parce que man président la woo na ma fii di mu wax ministre dafa waroon ñëw pour ñu teg pour ñu teg def benn euh, kii pour tax waa bureau pour def mutuelle de santé bi defe naa taxaw na léegi mu des ci accès ci accès logements sociaux yi te ñu ngi ci am yaakaar bu baax a baax comme lu comme lu comme loolu mu wax te emploi des jeunes yi tamit gis nañ ni président moo ngi ciy def jéego bu baax a baax a baax te Sénégal ñun sport lañu am yàlla ci lañu nattu ku jàppale sport ñun nga jàpp suñu rakk nga jàppale parce que tey yi ñuy wax yëpp ñu ci bénéficié wu mën nañ ni sax du ñun suñuy rakk la suñuy jarbaat parce que ñun ñii tey xam ku ci nekk yàlla xaw na la dimbali boo feebaree isam lax ñàkkul foo fajo wala ñàkkuloo loo fajo te isam lax ku ci nekk yàlla dimbali na lu mu ndaw ndaw am nga kër am nga foo dugal say waajur ba tax na accès même accès euh, logement yi du sax ñun ñoo ciy bénéficié wu suñu rakk yi te dañ ne kenn warul euh, mujjee puso mu réer sa loxo te tey fu làmb toll ñun am na noo xam ne buñ ko buñ ko buñ ko doxalee rek maanaam dañu dañu mujjee puso mu réer te warul demee noonu di santaat encore yàlla bu baax ah, di comme li ma wax tamit àdduna kuy woote jàmm rek daa fekk nga am jàmm mais bu ñàkk jàmm ñëwee ku nekk xam valeuru jàmm ba tax na am na luy Sénégal li nga xam ni mu ngi raam ci ñàkk bi la jëm te bu fa amee kër dafa gaaw a yàlla bu mu fa jëm nag kenn ñaanu ko parce que ñun Sénégal la ñu dëkkee suñu famille fi la ñuy nekk suñu njaboot fi la ñu nekk tey bu jàmm amul woon toogaay bii du am toogaay bii du am ñu fi toog ba yaatal ba tax na loolu jàmm jàmm ko gën ñu ngi ñaanaat encore ndaw yi jeunes yi ñu bàyyi seen xel am na li nga xam ni li may wax chaque fois yàlla moom mooy joxe nguur kenn joxe wu contre nguur sax day day day bokk ci ci weddi ndogalu suñu borom. nit nag mën nga bañ a ànd ak moom ci. waaw ci ay liggéeyam ak yooyu noonu. Mm-hmm. mais yàlla moom mooy fal kenn joxewul kenn nguur. Mm-hmm. xam nga ba tax na. ñu bàyyiwaat xel xam nga bàyyi violence bu ci dëkk bi parce que Sénégal tey ñëpp pays teranga lañ ko xamee bu investisseurs yi ñëw fii di investir parce que stabilité dëkk bi moo tax bu ñeneen di ñëw di wax pays de la teranga parce que jàmm-jàmm Sénégal tey jàmm jooju la fi ñëpp xam ba pare dafa am lu lu leneen lu nekk ci ginnaaw gis nañ dëkk yu bari yu mu am ci Afrique yi lu fa xew après muy ñëw ngi yaakaar pétrole gaz yeneen ak yeneen tey ñuy noonu Sénégal yu bari ñoo ngi ko entouré di xaar rek mhm. ba dara xew ñu dugg ci mhm. caxat caxatee suñu yëf loolu nag ñu ñu nekk ci dëkk bi ñoo ko war njëkk njëkk njëkk a bañ muy taxaw ci jàmm ku ci nekk am nga droit far fu la neex am mhm. na ko gars yi waxee ku ci nekk am nga droit far fu la neex ñun ay nit lañ ñëpp nekk Sénégal nekk ay ñu ci bari nekk ay jullit daanaka bokk bokk ku nekk am kuréel bokkuñu nu ñuy jaamoo yàlla. Mm. mais diine ku ci mën a am wute. Mm. waxuma la ak politique politique yëfu àdduna la dafay jeex. mënuñu fexe ba kenn faral ñëpp. Mm. faw ñuy farfee ñuy farfale mais tamit ku nekk. da nangul moroomam position bi. doone fii laa bokk rek. keneen ku bokk fële dama koy xaas dama koy saaga wala loolu xamee wuñ ko Sénégal te loolu du démocratie dañuy wax Sénégal pays démocratie la tey démocratie mooy ku nekk far fi nga far am nag loo layalee fi nga far mais du dama farfale fële kee far lu mu wax du noonu même lu mu baax baax lu mu wax lu mu kii kii du dëgg loolu nag moom dañ koy ñaawlu rafetul ci dëkk bi vraiment di remercier encore euh, presse bi xam di ñaanal président naal yi mu naal yàlla dimbali ko ba mu mottali ko puisque bu yéene yeggee Sénégal yëpp nekk ci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 président dafa ñu recevoir 8 mais bi passé ñun mbër yëpp ñu ànd dem fa du mbër sax monde de la lutte ñu ànd dem fa ba ñu demee suñu ay bëgg-bëgg ñu wax ko ñu ànd ak suñu njiit muy Bira Sène suñu ay bëgg-bëgg ñu wax ko ne lii am nañ ko problème bii am nañ ko problème bii am nañ ko problème bii am na ko président apprécié ko bu ñu xoolee dafa am loo xam ne dafa spécial jour boobu président dañu ko defal mooy palais de la ñu dugal fa ay sabar ba bañ commencé maam Gorgui Ndiaye suñu papa suñu maam di bàkku président dafa ne ana sabari ñu ne ko mu ngi ci biti mu leen dugal leen ko ñu dugal yi pour la première fois ci biir pare ñu ñu bàkku wala suñu cosaan loolu dafa wane respect bi nga xam ne ñu ko jox parce que ñun ñàkkuñu fuloo comme ko waxee rek fii ñun ñi ñëpp toog on parti de rien pour arriver à certain niveau ñun ñi ñëpp ba ñu commencé zéro lañu ba ñuy commencé yenn journalistes yi yëpp ba ñu commencé zéro kenn xamul booy ñaam kenn xamul lu baax la kenn xamul lu giri loolu ñafe jaayante moo tax ngeen xam ni moo tax Sénégal xam ni donc bu ñu doonoon ay yambar yëpp doo ñu xam wala bu ñu doonoon ay yaafus doon doon ñu teg fii wala bu ñu toogee fii doon ñu déglu donc dañ jaayante moo tax ngeen teg fii bañ demee ñu wax suñu ay doléance comme ni ko ngiri waxee président jàpp yëpp daf koy daf koy yitteem tamit ba ñu xëyee conseil des ministres suñu gis mu approuvé yëpp mu li ñu waxoon yëpp le fait mu xëy ndax xëy ndaw yi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 comme ni nga ko waxee couverture radio universelle bi mu installé ko comme kii ni ko waxee. donc bu nit bu ñu defaree loolu dafa baax ñun ñu sant ba gërëm ko parce que ñun duñu ay baadoo la ci dëkk bi lañ dëkk ku ñu defal lu baax dafa ñu sant la gërëm ko ba ñu jógee pare dañ ci dégg lu nekk. ñii ñii di génn di saaga ñii di génn di wax ay wax loolu jaru ko ñun ci temps ñun ci temps du leen dëkk ñu ñëpp ay sénégalais lañu. Sénégal dafa am ay jikko yu bees yoo xam ne amu fu woon te dañ ko commencé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 ñii nii jàngal la ba pare affaire bu amee da gis ñii combat bu jotee da ngay faral Balla ñii faral Boy Niang ñii faral Eumeu Sène te ñooy bokk benn kër da ngay gis benn kër ñii faral Balla ñii faral Modou ñii faral Eumeu Sène am na waaye léegi loolu mënuñoo nangul ne nag bu politique amee ñii faral fi ñu far bi lu tax mënuñu ko nangul Sénégal dëkk jàmm la ñu ñëpp ñoo ko bokk wala mbër moom du citoyen ba bër bu génnee na ban fii laa bokk wala loolu rek dañ ko war a saaga ndey non non demee noonu warul demee noonu ñu ñëpp ñoo far politique am na quoi parce que politique benn moment la rek mais politique du àdduna bi yëpp politique benn moment la élection day jékki-jékki ñëw ñu dox ci ñi def seen campagne ñi bokk ci comme naan mais du laaj bi yëpp mu nekk politique élection yi bu passé après ku ne da ngay dem continuer sa liggéey mais boo bëggee am dara sa laaj da nga koy ñafe pour am ko comme naan mais nekkul ñun élection moo ñu may dara parce que ñun ñi yëpp toog ñu ngi sant yàlla réew mi ñu bëgg a ngi yor di ñaan mu yokk ko bu baax suñu ko yor ak suñu ay femme yëpp di dimbali suñu ay femme di jaayante bu baax a baax kon ñun kenn mënuñu jënd dafa am moo boobu dama koy dégg mooy métti bu baax a baax mbëri dañ leen jënd mbëri am ñu ko non non bu mu demee jënd suñu prix kenn xamu ko amuñu njëg non amuñu njëg suñu prix kenn xamu ko comme naan dafa baax rek ñu gis dara rafetlu ko apprécier ko wax ci ñu gis dara rafetlu ko nga leen jàppale ñu jàppale ko loolu la rek mm-hmm. mais kii faralu ma rek le fait que moom dama war a génn saako ay ndey wax wax ñu ñaaw loolu noonu ba pare beneen affaire mi ngi ci mooy kilifa diine yi Sénégal dañ xam ni ñu yëpp réewu tarixa bu ne daam tarixa boobu bokk dañuy léegi-léegi ñuy warmaa kilifa diine yi daal kilifa diine day wax sax nga gis koo xam ne ci commenté nga riir commentaire bi sax da ngay am boo xamante ni kon warmaa la ci dëkk bi loolu ñu jeunes yi ñu ñëpp dañu war a bàyyi loolu parce que àdduna demewul noonu ñu ñëpp ñoo far ñoo bokk ndey ñoo bàyyi mais bu élection jotee wala produit jot damay nangul yow Balla ñoo bokk ndey ak baay wala ñoo bokk làmb ci dama nga far fi nga neex ma far fi ma neex li may ñaar yàlla mooy bu ñu yegsee ma gañ la wala nga gañ ma bu ñu paree ñu kafree naandoo loolu mooy Sénégal ñu loolu lañu xam ñu ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk président dafa koo xamante ni dafa jàppale làmb mu defal làmb ni ñu ñu bu ñu ko waxee bu ñu ko waxoon président ñaata ñoo fi jaar kan moo woo sponsor jàppale làmb war nga jël 500 millions jox ko promoteur nañ waxtaan dëgg nga kenn defaluñu ko mais duñ ko nit defalee yow daal duñ ko remercier lu tax duñ ko sant ku wax ci Macky dara yow yaa nekk ku bon yow lañ war a saaga boo waxee keneen dara ñu ne yow yaa yow yaa baax yow yaa nekk nit bu baax ci dëkk bi yow yaa ànd ak peuple bi non non demewul noonu dafa am ñaari parti ba ñett ba ñeent ñii far fii ñii far fii léegi nag citoyen lambda bi da nga mu xool mais ñun ñi pariwuñu kenn ne la kaay bi déedéet dañu am droit rek gis nit mu jàppale gis ni li muy teg paa yi muy teg mu rafet gis ñu kii ko jàppalee dëkk bi na dem fenn ñu ànd moom jàppale ko yow tamit am nga sa opinion bopp nga gis ku la nga ne man kii moom doy gis naa kii su ma xosaan lekkaat kooku ñu am dara ma ànd ak kooku ñun tamit dañ la nangul mais ni la nangalee ñun tamit nangul ñu bu gisee kenn suñu xel daal ci moom ñu ànd ak moom waaw loolu la rek parce que affaire yi noonu la waaw boo waxee di man ku la àndal waaye yow boo ñaar doo ànd ak kenn yow Balla yow doo ànd ak kenn yow da ngay toog rek di xoole noonu ñun ay citoyen lañ boo leen ñu ci dëkk bi am nañ droit gis gu ñu neex rek ñu ànd ak moom mais lépp ko ci foo ak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 mais nangul ñu ko rek parce que ñoo bokkul ndey bokku baay mais comme ni lay nangulee nga faral Balla wala nga faral Modou nekkul yow da nga faral Modou rek suñu gisee maa dañoo war a guerre noonu ku am nga droit far fu la neex comme loolu mooy li am solo loo xam dañ ko war a message bu ñu war ko pour ñëpp dégg ko le fait que nag Sénégal dafa toll foo xamante nii boo waxee dara ñëpp ñu ñi ñu lay saaga ñu ngi lay wax ñu ñaaw ñu xam ne ñun ay borom njaboot lañu fi ñu yegg si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 waaw ñu ngi ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonente bi sallallahu alayhi wa di sant sunu ñaari waajur di sant sunu sëriñ Seydi Aboubacar si radiallahu anhu di nuyu assistance bi yëpp ñu fi teew ñëpp di si jiital sunu mag yi fi nekk di kontaan trop ci initiative ñoom buñ jël parce tey ñun taxawaay bi ñu ci mën a am mooy taxawaayu Baye Fall mooy ñoom ñoo jiitu ñun ñoo topp seen ginnaaw li leen war mooy ñoom buñ jiitoo ñun ñu gere couverture bi moo tax tey suñu toogaay fii di wax sax mënoon na ñàkk ndax ñoom matal nañ yëpp mais comme que ndigal la dañuy wax di wax rek toujours ne ñoom ñu ngi ci seen ginnaaw te initiative bi li ko li ci ëpp solo ak li gën a tax képp kuy mbër nga war ci sawar mooy grand yi dañoo jug pour bëgg def seen apport ci Sénégal mooy dugal seen loxo ci Sénégal donte yàgg nañ ko def te ku ci nekk ñoom ñëpp dañoo dispersé woon ku ci nekk di def li ngay def yow kese ñoom ñëpp nag bu ñu demee ba boole seen doole pour bëgg taxawu Sénégal lépp lu Sénégal bëgg ñoom ñu ànd ci loolu loolu yaakaar naa sénégalais yëpp ñoo ko war a rafetlu ba tax na seen audience bi fii mujjoon a am dégg nañ ci ay wax yu bëree bëri yu ci am mais mbër moom ku ko sori rek dof-dof lu moo tax ñëpp mujjee ñu jàppee ay dof parce que ay nit lañu yoo xamante ne dañoo simple am na sama benn jigéen bu ma woo su ma mag ne ma man gars yi liñ dem pale sax neex naqariwu ma mais fecc bi ñu fecc si kanamu Macky Sall moo ma metti ma ne ko mais mais mbër mbër feccal na ku ne mbër bu demee takk day fecc bu demee ngénte day fecc bu demee xumbal day fecc parce que mbër mission du sax dugg ci yenn affaires yi nii ñun sunu mission si Sénégal bañoon nañ ba li gars yi di def rappeurs yi di créer affaire di grève ak di yëngal ñun ñoo leen ko dàq parce que bu dee fit kenn ëpp ñu fit ci réew mi bu dee kàttan même chose mais ñun dañoo ñëw taxaw taxawaay boo xamante ne ñun pour Sénégal kontaan rek moo ñu mën a yiteel mbër yëpp a neex mbër yëpp dañoo saf xorom mbër yëpp dañoo neex fu ñu toog dañuy waxtaan di xumbal parce que ñun loolu moo doon suñu taxawaay ci réew mi looloo waral boo gisee yenn wax yu bëri nit ñi di ko wax mbër dof la parce que moo jéemul sax bokk ci ay détails parce que moom dafa jàpp ne sport moo ko war ak di kaf ak di foog nit ñi loolu nag nañu ko Sénégal conserver la parce que pour man làmb képp ku koy delloo képp ku koy ginnaawal complexe nga parce que c'est sport de chez nous tey boo gisee booy seetaan sumoo da ngay toog di reetaan te ñi koy def yëpp c'est des milliardaires parce que ñooñu jël nañu seen benn culture valoriser ko ba mu yegg fenn moo tax bu mu gisee ñun ñoo xamante ne dañoo gëm souveraineté dañoo gëm seen réew ba pare di di complexe si làmb du dara lu dul complexe la waaw làmb loo xamante ne la dañ ko war a valoriser grand yi nag li ñu def nii bokk na ci lii tax ñu xam làmb mooy dañu war a commencé di am seen kàddu ñu koy dugal ci réew mi ñu fiy jël ay position di wax seen ay bëgg-bëgg parce que kenn gënu leen bokk ci réew mi te réew mi ñun ñëpp ku si nekk li ko li fi indi président bi moo fi indi opposition bi moo fi indi ñëpp mooy ay waajur kon nag ginnaaw bañ ñëwee bokk ci làmb ba pare ay nit ñu bëri topp suñu ginnaaw ñoom dañoo war a di boole seen ay kàddu di teg seen ay seen seen seen ay jëmukaay di ko leeral te nag lii nii rek wane na commencement bi la te gëm naa ne dina yegg fu gën a sori président Macky Sall tamit euh, engagement yi mu jël ci làmb engagement yi mu jël ci làmb nga xamante ne ba mu ko defee ci euh, si lendemain bi la commencé di teg di teg ay jéego loolu rek jar na lu ne parce que làmb bu leen fàtte ne ñi si yaakaar ëpp nañ dix mille personnes te dix mille jeunes ku ko jël ci biir réew xamal na lépp nice te fii ñëpp xam nañ ne champion yi fi nekk yëpp ay mille cinq lañ commencé woon di siiw wala dara depuis 2012 ba léegi pour nga gisaat fi ay champion yu mag amatul parce que làmb dafa dellu ginnaaw kon nag tey bu ñu gisee ku ñëw taxaw engagé wu ci loolu kooku war nañu mën a taxaw taxaw ko moo tax tey man de wax dëgg fa yàlla du ma ne kenn yàlla ngi lay nuyu te gisuma ko waaye ba ma gisee li nga xamante ne moom lañ teg mu commencé jëm kanam ma gis engagement wu grand yi dama ne leen man je suis d'accord waaw kon loolu rek niñ ko waxee fii àdduna la te foofu daal lañ koy yemale. en tout cas ñu ngi leen di remercier di leen wax ne ñun ñooy seen ay Baay Faal ñu ngi seen seen ginnaaw foo leen ñu woo dañuy ñëw. maaleykum mbooloo ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax di wax ne ñun suñu kàddu sax mënoon naa ñàkk mais tamit comme ay xale lañ te ci réew mi lañ bokk te réew moom boo ci bokkee nga doon paa nga doon xale lépp ci réew mi nga bokk. kon am nañ ci kàddu euh, man demum pale bii passé wax dëgg fa neex yàlla dew ma woon ndax mu ma fekkoon ci yeneen yitte mais bu ma fekkul woon ci yitte yooyu tamit amaana dinaa dem dew ma woon mais li ma ci dégg lépp barki Serigne Touba neexuma parce que tamit même bu ma demul saaga yi man ci laa bokk parce que mbër yi lañ wax génnewuñ ci kenn souvent nit ñi dañuy dégg ñu naan mbër amul ngor mbër amul ngor te maanaam ñi wax naan mbër amul ngor yëpp barki Serigne saalu Mbacke boo leen xoolee ba ci biir amuñu sax xaritu mbër mosu ñoo jëflanteeg mbër man pour man mbër a ëpp ngor ci Sénégal barki alxuraani karim parce que li tax may wax loolu ñun ñii di ay ndaw rek ñun dañuy xool ñi nga xam ne ñoo wéeru si ñun ñu leen di dimbalee ñaar téeméer ak 1000 francs waxuma la ak ñi nga xam ni suñu borom defal na leen lu nekk comprendre nga ndimbal bu ko kenn xeebal nit. nit ki li mu am lay dimbalee nit ki lu mu amul du ko dem sàcc wala mu koy wuti ci comprendre nga te ñuy wax naan mbër amul ngor yëpp boo xoolee ba ci biir mosuñoo jëflanteeg mbër dara mais képp ku mus a jëflanteeg mbër ci ngor mbër ma delloo na la ngor bi ba wis la na gars yi bàyyi wax ju ñaaw ji parce que ñii ay kilifa lañ ay responsable lañ ñun ñii rek nga toog ci télé dañu saaga warul waxuma la ak ñii ñii comme ni ko baabooy waxee ñun ñii rek di ay xale nekk ci làmb kenn mënuñoo jënd loolu il faut mu leer ci seen bopp kenn mënuñoo jënd ci dara ni ko baabooy waxee noonu la demee ñii yàlla defal na leen lu nekk ci làmb ñii bu leen neexoon tey ñu tekki seen ngemb bañ a waxati sax ci làmb bañ cee doxati ku leen saaga rek ñun ñoo tax suñu jëmm ñun ñi nga xam ne ñooy ay booy nekk ci ginnaaw xam nga yaakaar ñoom li ñu am ñun ci ñoom la ñuy xool pour yàlla defal ñu li lim leen defal parce que ñoom ñu ngi dimbale ay doomu aadama li ñu am ñun bëgg nañ ko am ndax bëgg nañoo dimbali suñu yaay tabaxal leen ay kër jox leen ay oto yu baax ñu koy dawal koom ñëpp te ñoom bi ñuy commencé Balla Gaye mii mus naa ko toppee seeraas histoire bu garaaw laa lay wax bi muy doog a débuté bëreeg Issa Pouye seen premier combat bi Issa Pouye daan seeraas laa ko gis topp ci ginnaawam barki naa Mouhamed bu dee li may wax du dëgg yàlla bu ma war a timbali ci làmb seeraas laa ko fekk topp ci ginnaawam di ko xool mu yemb ndax jëm moom seeraas laa ko toppee muy dox may dox ba bund Pikine mu yéeg super dem ñibbi tey Balla Gaye kenn du ko fekk mu yéeg ci super di ñibbi kon jaar na fu metti moom ak keneen ak keneen ak keneen ñoo ci bopp yam kon tey ñii ay góor lañ mbër góor la ñun ay doomu góor lañ kenn du ñu fekk ci lu ñàkk fayda mbaa nga ñu siy jëlee réew mi nag li fi nekk lenn dong la ku mu neex day far fu ko neex comprendre nga ànd ak Macky Sall taxul nga ñàkk fayda taxul nga nekk nit ku bon ndax Macky Sall wootewu fi lu bon woote wu fi kaalal ñu rayante woote wu fi kaalal ñu jamante woote wu fi kaalal ñu tas dëkk bi Sonko tamit bu bi bëgg a yor réew mi ñëwul pour yor réew mi pour di ko taal wala muy tàq wala muy def ay affaire boo gisee ñi koy taalaka def ay yëf yëpp ñooñu du ñu ay opposant sax ñoo ñu ay nit ñu xewar la ñuy toog seen rukk rek di xaar dëkk bi yëngu ñu lijjanti seen bopp ñun xam nañ nu mu demee du ñu ay ngaar opposant du taal opposant du dajji osa du dajji palaasu jàmbur léegi romb nañ sax osa dañuy dajji ay magasin wu jàmbur yoo xam ne kii si lay suturlu mook ay njabootam ñaata nit lañ fi toroxal yu toog ci ay centaine de millions yoo xam ne ci ay manifestation lañ koy jël nga koy dégg wala bakkanu doomu jàmbur bu ñuy jël loolu dafa ñaaw nañ leen delloosiwaat suñuy xel tey manifestation yooyu lu ci nit mun ti jël doo ko jëriñoo na doon ay milliards barki maam Serafal da ngay xëy mu jeex nga dem sàcciwaat ñu jàpp la rey la reyu kaña te amul njëriñ